te mhm. wax ne vraiment c'est pas c'est pas tenable. Sénégal problème am mooy man damaa jàpp Sénégal amul association consommateur bu amoon. Ah, lii non non amul. Momar mu ngi lay dégg de. non Momar Ndao man damay ñaan sax yàlla yàlla na yàlla na yàlla dogal benn jour. ngeen doog ngeen doog même ma soxna kan moom moom sax laa gën a moom laa gën a jox cër parce que moom. Euh, ku bari bari xam-xam la. Mhm. maître ma soxna kan. Mhm. mais man damay ñaan rek plateau dina ñun xam nañu wiir wiir jaari njaari yàgg yàgg dinañ daje ñoom ci plateau yi. koy daje Momar. ñoom waa consommateur yëpp. parce que xam nga Sénégal lu tax ma ne amul association consommateur. Mhm. am nga la vie bi ñu fi jógee dañoo fixé woon kilo suukar 575. ñun boobu lañ leen waxoon mënul nekk maximum nañ def 600. ñu bañ ñu ne ko 575 lañ koy def. ñu ànd ak ñoom. bi ñu demee ba ñu xam ne lii jaay perte la ñun ñu arrêté ko suukar bi manqué. ministère bi daa xëy yóbbu suukar bi jëlee ko vingt six vingt sept mille six cent cinquante yóbbu ko trente et un mille trois cent cinquante ana consommateur yi te man li ma gën a métti mooy consommateur moo taw taw di féliciter ministère. ci liggéey ci liggéey bi. fekk mu am poste. li may waxatee ngi moo tax xoolal ministère bi imaginer xam nga loolu même même même. waroon ngeen fa def jàngat wax nañ ko ba sonn fii wax nañ ngeen war wax ne da ngeen war a wax ne suukar bii vingt sept mille six cent cinquante la woon. Mm. ministère bi xëy kenn kenn man Sénégal kenn waxul dafa mel ni Sénégalais yi. li ñu ah, wax nañ nag télé yi wax nañ rajo yi wax nañ. non wax jii comme li ngeen may wax nii rek ministère bi xëy na. jëlee suukar bi vingt six mille vingt vingt vingt sept mille six cent cinquante yóbbu ko trente et un mille trois cent cinquante te xam nga ñun ñun bitike yi xam nga ñun waxaguma sax ñun suñu problème ci bitike yi ñun xam nga lan mooy suñu problème ci bi ci ci commerce Sénégal. Mm-hmm. Euh, mille euh, quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre mm-hmm. jamono yu Abdou Diouf. Mm-hmm. la ñu fixé loon boobu kilo ceeb. mu ngi jar cent cinquante fanweer. tey fanweer la doon jar Abdou juuf ne bitike bi ñetti dërëm la ci am. ba tey mu ngi jar cent 410. Mhm. bitike bi ñetti dërëm la ciy am. changé wul changé wul gaz boobu mu ngi jar cent cinquante gaz bu ndaw gaz mag gaz bu mag. gaz bu mag 850 la doon jar ñu ne bitike bi 85 nga ci am. Mhm. ba tey 85 la ciy am mu ngi jar 2985. musu ñun suñu marché bénéfice musu ta changé état bi nangu ñu déglu sax. Ah, loolu problème la. léegi nag ñun. produit di yokk te yéen amoo leen bénéfice. mu munul musul am. diwlin bi muy jar téeméeri dërëm lañ doon am fukk dërëm. Mhm. léegi xoolal bidon bi 1000 francs lañu nañ ko jëndee 19000 ñu jaay ko 20000 ñaata lañ am litre bu ne 1000. Euh, fukki dërëm ba léegi jamono yu Abdou Diouf ba léegi ñun état musul xalaat bitikee bi naa xool marché bosom fii sam xool ko te ñun ñoom wax parce boo waxee population bi de.